بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إن نريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت wa ilayhi unib wasalaatu wasalaam ala rasulihi almuallimu al akmal wal uswati al amthal sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نحيي ابننا البارع محمد المنصور وكافة أسرته الشيخ الجميل الشيخ محمد بن مصطفى سي وجميع أهل الحضرة المصطفوية المباركة من العلماء والمقدمين ورؤساء الاتحادات والدوائر كما نحيي الحضور من النواب والمسؤولين السياسيين والزعماء التقليديين وكذلك نحيي الأخ الكريم محمد المنصور بن محمد الحبيب ونحيي الأخ الحاج بن سلم وكافة أحفاد الشيخ الحاج مالك سي ومن خلالهم نحيي ونقدر حضور الأحباب والمريدين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا قائلين للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي leen ziyaara di leen ci ndokkeel ma demee ndax man eh, biir ba tey maa ngi tudd sama yaram ma yëngu waaye mu ni ma man kat Serigne Mbaye Mansour dafa am benn conférence bu ñu ko sant ca maison de te man la yóbbaale ma téléphoné Moustapha pour wax ko ni ko na wax Serigne Mansour na def waxtaan bi rek man dama xaw a jege mu ne ni ma man de de départ naa ñe daal di ni ma te yoo xam nga loolu ñeme mu koo wax ma ne ko ah waaw kon nag man mooy def ma gisuma keneen ma ne ah waaw non ma ñett ñetti rek su ma demee ma teew mañ ma ñaan Sëriñ Mansour njéggal eh, heureusement ma ñëwee fekk mu dégg jamono mais tam jamono moomuñu ko mais wax ni yàlla la ñu mm-hmm. ko jox li ciy bind te nu ñëw ci bis bu tedd bii nga xam ni maa ko engagé ak njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha di ñëw di leen wéttali te dafa am bés mu ñëw si ko moom Seydi Moustapha fekk mu xaw fi géej naka laa ko jox loxo rek mu maa yow di géej ma ne ko wax naa fi géej gi moom lay si mu ni ma waaw may naa ku nekk mu géej fi ba mu des yow mu ndax Serigne Mansour mu nga Cheikh Tidiane mu nga ca pax ma xam nga ko léegi man maa ngi laxal toog fii mu te gis nga kumpa doom la joo xam ni diggante bu mu juddu buñ ko fa bàyyee mu màgg dana yàq li ñaar ñu ko séq dootul mën a defar mu ni kon yow yaay war di jële ci ñoom di ma indil di jële ci man di leen yóbbu su ko defee kumpa du am su ma la gisul duma mën a wax ak yow pour nga wax ñoom ñoom itam peut gisuñu la diñu mën a wax yow pour nga indil kon nag may naa ku nekk mu ngi fii ba mu des yow fasanteer moom loolu yàlla dogal mu jóge fi Sëriñ Mansuur des fi jiite njaboot gi mu jiite woon di ànd ak ñoom di jóg ak di taxaw di jéem la nga xam ni moom doon na ko def mu mel ne itam bés bi li la laaj la waaja الصالحين وسمني balaa ñu ciy dugg ñu nuyu ñi fi teew ñi Sëriñ ñu ngi koy nuyu bu baax ak i rakkam ak mbooleem famille yu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha man na yàlla dolli ci ñoom barke di nuyu ñi ci ay fédération ak président union ak yu daayira yi ñu nuyu ñi ci ay député ci ay responsable politique ay kilifa aada ni ñu nuyoo Seydi Mouhamadul Nasir ibnu Seydi Mouhamadul Habib di suñu waaye di seen bàyyi di nuyu alxaaji Dut Sall ak mbooleem sëti Cheikh alxaaji Maalik yi fi teew yu góor ak yu jigéen te bu may wax sëtam yi du ñu santi si rek laa ci jublu ku fi teew rek sëtam la ndax noonu la liggéeyee woon noonu la doxale woon bañ na ko ba Tiwaawan ba mu sam daf ni du sama kër këru yàlla la ku yàlla ñor rek ci nga bopp kon ñu ngi nuyu sutam yëpp ñu góor ñi ak jigéen ñi di ci du soxla lay safi si suma tàndee moom moom mooy suma tàndee lay saan waaw noonu la noonu lay jikkoo. bàyyi mu ko tuddee sama xam yi. waaw sama ko tuddee. waaye nag waroon nañu ko yëgal. ñu nuyu ko ak sët jigéen yëpp. Eh, di rafetlu it teewaayu soppe yi nga xam ne dañuy sopp kër Cheikh Al Hadj bu lu ñu dégg rek muy woote ku ñuy jóg ñooñu itam taalibe yi mbokki taalibe yi ndax daanaa dégg suñ Babacar Sy radiyallahu anhu mu ni ñàkki teggin mi ngi yem ci nga ni diw sama taalibe la danga naan sama mbokku taalibe la boo ko mayee wàddi sa mbokku taalibe la yow da la jotal rek dañ la jox rek ne la jotal nga jotal tarixa bi noonu la li ma la ma bër kilé ma ni moom ñëw ci yëfi jàmm woote ci ba am ca bat bu ciy tiital ah da tarixa bi moomoo ko yàlla moo ko jox si Ahmed Tidiane jaar ko ci yonent bi ñu ko ndax mu rénové baat diine l'islam dogal ko ci asal ñu ma di xaatimul awliya ba ko mox yi diini woote alxaatimi ñu ne ko du yow mhm. ne du man ñu ne ko déedéet mu ni kan la ñu ne ko boroom nga ca maxarib dana mhm. ñëwi waaw muy def lu nekk pour xam ba gis ko la ñëw ni gis naa ko de ci ruq ba mu nekk waaye dana ñëwi de bis bu ñëwee nag la muy indi dana rëy ci nit ñi ba dana bari ay contre ak ñu ko noonu lool daa Si ndoxum contre mooy loolu sa gàncaxu tariqa <laughs> bi mais fu ñu ko contre rek mu naa nga defee ah waxtaan ak Cheikh Hadj nag yombul ndax dafa am loo xam ni ñun ñu koy métti lu te moom moo ko sabab wallaahi mooy nit ñi xamuñu mooy kan man huwa Cheikh Al te ñu nangoo ci làmmiñu Sëñ Babacar Si mu ni dafa toogoon ak moom benn timis benn silma xaddi ko woy di wax rek ni mu demu woon màkkaat fekk ñu tëj kaaba gaat aj dafa wees mu ñëw ñu ni ko doo dugg mu am lu muy jàng rek bunt yëpp ubbi ko nee mu dugg ak ne loolu la gumba gi doon way nag nee na mu ni ko demal ci kii way nga ni ko mu noppi walla mu way sëñ Babacar ne ma ñëw dindi dërëm jox ko ni ko woyal bu baax ne gumba gi gën nga dikk nee na sëñ xaymaa yi jékki-jékki ko waaw moom de defam defe mel ne xanaa dafa déggul li nga wax ma ne ko dégg na ko maa ko ne mooy bu baax lu ko est-ce ko sant bañ suuf bañ fàcc sa am gotti makka aj ko dafa am waxtu soo liggéey ba waxtu wa jeex nga dem soo demee doo am aj li ko kon nag ñoom ñi ngi may gotti te yëguñu ko nee ni ko ah xaw ma dem naa fekk ñu aj ba àggal leen déeg wala ma wax ñu ubbi waaye daal ba ma demee daal dër naa jàpp ca càllilee ñaan fa yàlla ñett te may na ma ko mu ni ko loo ko fa ñaan mu ni ko bu jëkk bi dama ko ni cër boo may jox bu ma ko jox ci àdduna nan ma ko dencal ba ëllëg nit ñi door a xam may kan mu ni ko bu ñaareel bi ma ni ko néeg yi ñu lay jaamoo yal na bari ca Sénégal te ma bokk ci gis nga léegi ki taxawoon di wax naan jàkkaam bu daanu jàkk yëpp moom lañ koy adressé mu ni ko loolu laa ko ñaan bu ñaareel bi mooy néeg yi ñu lay jaamoo yàlla na bari ca Sénégal te ma bokk ci parce que xam na ni politique gu ku ko teg ci tabax jàkk yaa ngi koy propagande parce que amul benn jàkk bu ñu naan jàkk jee dañ ko abandonné kenn julleetu ci fu jàkk taxaw rek diine taxaw moo tax politique am ci tabax jàkk la ko teg fu mu dem li muy jëkk a def tabax jàkk ndar la jëkke ñëw tabax fa zawiya jóge fa ñëw Tiwaawan tabax fa zawiya jóge fa ñëw Ndakaar tabax fa zawiya ni sama ñetti zawiya yi feeg naa si rek àq bil àq mi ngi fay jub subaa ngoon yàlla mën na defal waa Sénégal sutura bu dul xotti ko te bu ci nekk nag mu ngi fiy jiib mu ni ko waaw suñ baa kon continuer di ko di ko lu tax nit ñi deel soow nag naan jaaraama Alaaji Maalik Jóob Usmaan fa wàcce moom fa moom fa moo wàcc na yaa ublam bi lislaam ak njool faama jaxaay dara tee di xaajoo le maire Sénégal nde yaa wone nooru diine ko loolu lu tax la ni ñaan nga yàlla lu mu lay defal ne nekk ëllëg te ni ñaa ngi lay soow loo ko ub ub bu baxee vapeur rek waaye man xam naa ne li ma ñaan yàlla nangu na mu ni ko waaw bu ñetteel bi la mu ni ko dama ko ni yàlla nga ma may pàkk bu lew ma di ca tuur sama ñaq di ko dunde te bañ dunde ñaqu taalibe mu ni ko te may na ma jag saaw maa ngi def lu ma man jag lu yéeme la bu fa bayaan ba mu àgg mbay mi lu mu bari bari dañ koy witt kenn du ko bàcc ndax nee na bëggul gerte gi muy yóbbu ca bascule ba ñu di ko posé benn bant nekk ci nee na te soo ko bàccee ak yet lool ko bees bees ay bant dañ ci am waaye soo ko wittee nag benn bant du ci am na tool boo xam ne trois mois lañ ko witt su nit di witt ba tisbaar mu ñaanal leen ñu def ngir bëgg rek ngirti bu sell ngirti bu muy jaay nekk lu sell benn bant du ca la ba tubaab yi dañu mujjoon di wax naan est-ce que du moom dafa am baatin bu muy def ci gerteem bi ndax moo gën a diis gerte yi waaye déedéet gerte bu ca bant nekkul xott nekk ca buuse nekk ca day diis boobu gerte ga daan la daan yóbbu mu am benn at boo xam ne nag witti nañ ko trois mois gerte ga bari lool ndax tool ba wax nañ ni suñu masaan rey nag ci digg bi nga wër di wër ba dellu daa fekk ñu fees ko ba toj ko ba togg ko ba lekk ko ndax tool bu réer mu jikko nag ca njaarle boobu mu nga njaarle nit ñi naan ah la ñu de xanaa su demee ndar su delloo ndar ndax da daan dem bay ba nawet bi jeex mu dellu ndar seeti njaboot bi njaarle maam Ruqaye Njaay radiyallahu anha moo fa jiitu moo fa jiitu nag Seydil Haaji Maalik gannaaw bi ko fa Seydil Haaji Maalik doo la fekk ñu ne nag ah toolu Maodo ren bi de xanaa su ko paree ba jaay ko su demee ndar lay jënd ndar ndar si boppam ñu bàcc ko ba àgg mu dajale ko def ko ci mbuus woo Mouhamadul Muxtar Waddaali Zakir ni ko kaay dem faas ba demee nga joxal ma ko njabootu ci Ahmadu Tijaan ndax dégg naa xaw nañu sonn mhm. fa ñu nekk moom dul Muxtar Waddaali moo ko yóbbu ba mu dem faas mu jox ko njabootu ci Ahmadu Tijaan yëkkati kunnaasu ci Ahmadu Tijaan jox ni ko soo demee ni ko nun tam lii lañ ko fayee fekk na loolu rek la bëggoon jot ñu ni bi Mouhamadul Muxtaar ñëwee am naa ak moom trois mois suba suñu xëyee daañu ubbu di wax la ñuy wax ba une tisbaar ñu dem julli ji dem julli ji muy koo xam ne nag d'abord mi ngi juddoo dëkk bu ñuy wax gaa yi milaaduhu radiallahu taala anhu wulida Cheikh Alhaaji Malick Sy عام ألف وثمانمائة وخمسة وخمسين 1855 ci la judd ci dëkk bu ñuy wax gaay gaayam mu nga ca gannaaw ndar ca waalo ñu ngi ci diggu wàllu waaye fa la wàllu wàllu piir nekk gaay gaay ak bokkal wàllu wàllu yi ñuy wax foofu la ñu piir ñoo ñooy wax yéegin yéegin yàlla dafa xotti seen biir ñu yeneen nag ñoom bagage bi nag toog di ko wattul bagage bi nga defee bu déggee saxaar di riir di ñëw rek bu ko saxaar rek moo amul baayam ndax ci quatre mois ci biiru yaayam ci la baayam faatu Ousmane Sy mu ngi tuddoon démb xurey jë mu ni dafa ceddoo ba mu ëpp soppi ko def ko Ousmane maamam mi ngi tuddoon démb bunna mu soppi ko tudde ko Muaz ñu ko xam ne kii nag li ci sëñ Mansour wax rek kéemaanu yàlla la moom itam ci jamono bi da yatiman min abin ismu Usmaan min ismuha Fawad Bale waqad ta'allama al-Qur'ana fi sigarihi fa xafidahu wa jawwada qiraatahu summa ta'allama al-ulum ad-diiniya wal-lugawiyya wal-aadaab al-arabiyya ala ala aydi ulama mashahira urifo bi ulumi lkaabi wa quwuli lbaari fi furui lilmi walmaarifati nadkuru minhum ala lwajhi lxusus samiyahu malik sow wa ammahu ahmad wa xaalahu alfaahu mayoro bi mu matee dal jàng yaayam moo ko dal jàng jox ko sëriñ bu ñuy wax Malick Sow Malick Sow moom la maam Ousmane doon seet si pour mu abal ko ihmiraat mu sotti ko jàngale ko fa la yàlla dogale ñoom mbokk yi ñu d'accord ba sedd soxna faawaat li ñu jox ko maam Ousmane mu am ci Seydil Hadj Malick mu jàng alquran rek ci loxo ñu am xam-xam ñépp siiwe ci xam-xam bokk na ci ki ko tuddee Malick Sow ndax moom xaritu baayam di patron baayam lañ ko tuddee ndax ba maam Ousmane di dem te xam nañ di du dellu si def ni suy juddoo su dee jigéen nañ ko tudde sama jigéen bi ñuy wax mati dem la su dee góor nag nañ ko tudde Mali Sow mi nga xam ne moom laa fekk si woon ci dëkk bi mu nekkoon fi sama patron mu nekk fi sama njaati ñooñu nag ñoo ko jàngal alxuraan ak bàyyi tëxam bu ñuy wax Ahmad moo doon magi bàyyi ak nijaayam alfahim ma yore mi ko may wel mu sosu nag di aliman faqihan wa mujtahidan bi mustawa al aala alladi makkanahu min nashri daawati al islamia wa taalimi ulumi shariati al islamia wa irsaai daaimi tariqati al ahmadiyati al tijaniya al sharifa wa nashriha ala awsai nitaaq fi ifriqiya algarbiya bi qadri ma kaana mutasarrifan wa cheikhan murabbiyan aarifan bil masalik ila maarifatillah laqad daxala aalama tasawwufi alislami fi ahdin mubakkirin min xayaatihi ala naxwi alladi najiduhu najiduhu ko defee nag ñooy ñoo ko jàngal alquran ñu ñëw jël ko yóbbu ko Jolof fa lañ ko mottalile alquran la mag ba mu mokk ko ci papaam bi nga xam ne mooy magu papaam bokk ak papaam ndey ak baay sunu maam ëmmadu foofu la jànge alquran ba mokkal ko ndax dañoo ñëw jël ko ni doom baayam moo ko yar ñu ñëw jël ko yar ko jàngal ko alxuraan ba mu mokkal ko nag ñu doon koy yabal di ko dellul gaaye nga seeti sa yaay wan ko ni ko mokkal nga alxuraan ba mu xam ni yàquñu la dañ la doon defal dañu bëggoon leen nga yàlla mu ne nag formation boobu moo ko may mu am ci xam ak xam ne lu ko may ñu tànn ko ca fa ñu ko tànnee te fekkewu ko yëgu ko ni ko na jiite tariqa ci Ahmed Tidiane fii ci sowu jant ndax Cheikh Omar dafa waxoon ni radiyallahu anhu li may dese ci liggéey ci sowu jant ki koy mottali Malick lay tudd su ñëwee sama xol dañ ca sell bind wasiya ba jox ko maam Alpha ñu ko denc ki koy def ci sa néeg lay juddu te Mali lay tudd maam Alpha denc wasiya ba ba mu ñëw di ko ñaan werd mu boole wasiya ba ak werd wi ak jox ko ndigalal doxal ci benn ngoon moo mu daan wax ni sama jël tariqa bi ak am ndigalu doxal ko ak suma lijaase ma jot yépp ci benn ngoon laa ko am moom Seydil Hadji Malick mu taxaw nag ci wesaare lislaam fii ci suñu sowu jant gi taxawal daara daara ju am sol di ca jàngale matière yëpp mooy première marabout bi jëkk a sampu daara di jàngale matière yëpp bu jëkk li xawoon Sénégal da ngay jàng alxuraan ba mokkal ko dem jàngi Laxdari jàngi Asmaawi jàngi Ibnu Ashir jàngi Muqaddimatul Izza jàngi Risaala ni jàngal na xale kaanale ataay ni ni kaan fóore kaan fóore waaye moom nag mooy njëkk indi daal boo xam ni matière yëpp doon na ko jàngale ba mu des mathématique ilmul hisaab sëñ Hadi Touré moo ma wax bi ko jëkkee seeti ñu di ci waxtaan mun ma samaam ca daara ja amul woon ilmu xisaab boobu matière amul fa waaye ma dégg ni daara Umadu Maxtaar Saaxu ca Mbogge am na ko ñoom daañu jàngale mathématique nee ma ñëw tàggu ko ñu ko duma bëgg dem jàngi ko foofa su ma ñëwee di ko jàngale ci daara yi mu ni ma waaw dégg naa ko mu ni ma toog tamit yàgg ma ñëw ñaan ko fàttaliku ko ni ko waaw nga ma la waxoon mu ni ma wutal jumtuwaay yi rek te te toog déglu mais ma dem wut jumtuwaay yi indi te ci sama bopp la boobu lampe électricité amul sondeel la am mais su timisee ma taal sondeel di ubbi page yi di xool ndegete ubbi bi ma koy ubbi di xool mi ngi ma koy sol ba ma xëy taalif ci téere te jàng ma ko fenn ba bind ci lu bare bare nee na loolu moom la def nee na yàlla dogal nag dafa bokk ci sunna yàlla te sunna yàlla kenn mënu ko changer nee na mboolem risaale yi jóge ci kaw asamaan ñoom ñëpp dañu taxaw ci principe du dualisme ci seen woote zahira ak batin la boole fexe ba takkee asamaan ak suuf arabtu bayna samaai wal ard wa tansiq bayna dunia wal axira coordonné àdduna ak àllaaxira loolu nit yàlla yi yomb na ci ñoom def nañ ko ñu gis fexe ba takki asamaan ak suuf fexe itam ba coordonné àdduna ak àllaaxira nee na loolu moo tax alquran bi nga xam ni moom la ñu wàcc ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mooy njiitu yonent bi nee na di téere boo xam ni làmb na diine yi ko jikk yépp te wàcce ko asamaan ñuy doxe boobu tànk ñaari tànk principe du dualisme al zahir wal batin soo demee ci téereem bi ñu wax if amul munkirul jaani nga xam ni ci la tuddee silsilaam maanaam fi mu jaar yépp moom Maodo nee na téere booba tudd na ci ay sëriñam sëriñ yi mu dem jàngi ci ñoom dëkk yépp ko daldi ca njabaalee ngiiga kër Massil la Maare góor ga jaxate dëkk yooyu yëpp mu jàngi fa tudd na leen ci téere boobu tudd ñii silsilaam ci tariqa si Ahmed Tidiane jëm ci yonent bi gannaaw ba ko ko alfahim ma yore joxe ñi mu dem ci ñoom mottaliku ci ñoom tarbiya ñoom Mouhamad Ali Yaquba ñoom Badde ñooñu ñëpp dem na ci ñoom ci Mauritanie fu ñu si ne mu toog fa diir def fa tarbiya ñu jox ko lijaasa jox ko ndigal mu dellu ñii ci xadis may nañ ko ci ndigal ñii ci alquran may nañ ko ci ndigal ñii ci tariqa bi may nañ ko ci ndigal ñoo ñëpp Maodo tudd na leen ni ñii ñooy sunu sëriñ ci fànn sàngam ñii ñooy sunu sëriñ ci fànn sàngam xamoon loolu sëriñ si ko man bariwul sëriñ si ku leen jàngal ba ñu am barke dootuñu nangoo tudd ni di woon lu jàng jox lijaasa sëriñ su mag ñi nekk Sénégal yëpp moo leen jox lijaasa waaye doo dégg ku wax ba ni Maodo ma jox lijaasa am na sax ñoo xam ne léegi nangootuñu mu nekk seen sëriñ danaan suñu xarit la suñu xarit jàngal formé ci daaraam def leen nit waaye nangootuñ ko danaan bi la formé jàngal la defal leen man nga ni suma maître la waaye kenn nanguwut ci ni suma maître li naan sama xarit seen doom yi loolu la ñuy wax naan waaw xarit sa xaritam ba waaw moo doon daje xaritam ba te ñoom yëpp moo leen ko jox ne koo fi tudd laa moo la jox lijaasa ci tariqa si amati moo la jox lépp laax nga mën a maye lijaasa mën a def lu la nekk yi am na tijaan waaye dañ koy wéyaale naan sama xarit la boobu xarit de li na xarit la ëpp na xarit nag maître la man doon mais ëpp na xarit lu ko waaj waxoon daf doon firi alquran ca Tiwaawan bu daan firi alquran Sénégal yépp a fay daje koñ bu ne ci Sénégal ay boroomi xam-xam dañ fa jóge ñëw fekk ci firi alquran lu Seydil Hadji Malick firi mu mujj ni mu mujj firi sëñ Babacar moo ko wax ma dégg mu ni daf ko woo ci biir ñu ko Babacar suñu yëgoon du ñu def prix bi ñu ko nit ñaa ngi dee na te leer gi moo ëpp léegi eh, ko du bokkoon ak ñuy prix ca marché yaa prix mu leer gi ëpp ba nit ñi dee parce cosaan la fa mu cosaan moo tax ak moom moo ko def mu ni benn góor la maa ngi ñëw ci ëllëg sa waaw li nga doon firi démb euh, dama gis euh, téere bi euh, d'accord ak yow ci ni nga waxee moo di ni ko xanaa tafsirul jalaale ni nga yore mu ni ko waaw mun ko moo juum moo juum dama tisaay alal jalaale kooku moo moo jaane yoon waaw muy li sëñ baa ko tontoon benn kilifa dafa gis ku takk borolog bu fa toog mun ko dindil kii waaye xéeram la seetal loolu xéeram la maa dindi ko kay dindi ko yow waaye dindi bu ko de dan la ko lu ko dindil ki waaye xëram la waaye dindi ko kaay dindi ko yow taxaw di ko ne <laughs> mu demal oto waaye itam nag mu am sincérité moom sëriñ ba ca fan yooyu mu ñëw seet sëriñ Babacar mu ni ko maa ngi gis sa benn taalibe barki démb mu takk benn boroon sa photo nekk ci ma ni ku dindi ko ndax xëral la hmm, suma bàyyi di ko xëral xëral dana génn kër alaaji Maalik ni ko yaa fàtte nga jàng dañu ko taril bayti ba nag jàppatuma ko ci photo wëli yi photo saali ni ci sharia d'accord lu ko demal ci soñu alal jëlaale yi daa ko fa fekk yaa déggul la nga jàng ñu hii wax nga dëgg suñu baa ko ne ko wax waaye moo de loolu la wax mbokk ma ni ko xanaa tafsirul jëlaale yi nga yore mu ni ko waaw mu ko moo juum demal ca soñu alal jëlaale yi kooku moo jaar yoon suñ baa ko si daana wax ni ci Cheikh El Hadj Malick la ni téere bu ñu móole ci réewi arab yi dana juum mu ni nit ñi lu ñu mas a fekk téere mu jóge ci réewu arab yi rek dañ naan looloo jaar yoon waaye Maodo moo ñëw xamal leen téere bi day juum nit nit a def te nit day juum nee na mu ñëw ci jamono boo xam ni fekk na colonialiste yi ñu ngi gagné Sénégal te nee na nekk xam na ni colonialiste bu mu mën a doon noonu l'islam bu français ba bu allemand ba bu portugais ba bu italien beeg ñoo ñëpp noonu lislaam lañu parce que li ñu gën a bëgg la lislaam teg loxo nee na ndax benn kàttan la boo xam ni réew mi mu gañee fexe ba nangu ko force surtout mu nangu ko force militaire nee na day nangu seeni suuf exploité ko la ca nekk ci yiw yëpp mu jël ko bu ca pétrole nekkee mu nangu bu ca gaz nekkee mu nangu lépp luy njariñ bu ca or nekkee mu nangu bu ca weñ cuivre nekkee mu nangu bu ca fer nekkee mu nangu nee na noonu la colonialiste def ci réew mu mu wàcc ne seen munition yëpp def cee teg loxo na te dafay forcer réew ma mu coloniser ñu topp politique mu liggéey itam fexe ba bloquer seeni xel changer seeni aada yàq seen jikko falsifier seen foi effacer seeni tracé maam yi ne fu mu wàcc rek noonu leen di def ak colonialiste bu mu mën a doon nee na ci jamono boobu nag la ñu ñëw si xajimal ba ñi mel na moom dajeeg jamono colonialiste yooyu fekk booba al-isti'maarul français le colonialiste français buuf na ci dënn peuple sénégalais nangu seeni suuf nee na te la ko dimbale ci loolu ba tànk mën a dëgër nee ay facteurs yu bari la nee na bokk na ca euh, wasaniya booba dafa dafa dëgër ci réew mi nee na réere jullit yi dëgg-dëggi lislaam ca la bokk nee na ak njibar weesaaroo bu mu weesaaroo woon ci goxi senegal yi nee na yëpp ci facteur yi leen dimbale ba ñu mën a not Sénégal yi ci façon bi leen mën a note nee na ak ñàkk déggu ñaawu dégg chariatul islamiya bu senegal yi seen dégg ci chariatul islamiya dafa ñaaw nee na li ñuy tuddee tasawuf al islami mysticisme islamique ñu falsifié ko nee yooyu yëpp ci facteur yi leen dimbale la woon moo ñëw not Sénégalais yi waaw nee jamono boobu nag ñu mel na Seydi Hadji Malick ci la ñëw fekk fi benn Euh, benn ëtt xëccoo xëccoo boo xam ni bu armeewu la anisa anu salla diggante ñi doon gouverner Sénégal ci ay Sénégal yi di ay buur buur yu jëkk yi fi nekkoon ñoom ci seen bopp dañu am conflit di di reyante ñoom buur yi am ak colonialiste yi conflit di reyante nee na ci diggante bu mel noonu nag la Cheikh El Hadj ñëw fekk fi benn atmosphère bu jaxasoo ay trouble ak i fitna ak i xeex ne mu taxaw nag ni waaw man na laa war a def te dama bëgg a doxal diine bu sell ndax ñaari kuréel yi di xëccoo di xeex tubaab yi ak ceddo yi ndax damay farak ceddo yi bàyyi tubaab yi wala damay farak tubaab yi bàyyi ceddo yi wala ma dama leen di bàyyi ñoom ñëpp wut sama yoonu bopp xelem ni ko bàyyi leen ñoom ñëpp wut sa yoonu bopp waaye nga doxal nag benn neutralité politique mu bàyyi leen ñoo ñëpp àndu ceeb kenn àndu ceeb yi tubaab yi faalewul seen maam sax dafa ber yoonu boppam di ca liggéeyal diine di ca sampi jàkk di ci woon nit ñi di leen xamal di leen jàngal parce que nit ñi nit mënoo koo not not gu cofeel lu dul nga jàngal ko mu am xam-xam na yow moo tax mu ubbi daara joo xam ni euh, daara ja doomu soxna yoon ci Sénégal ku ñu yónni nga sa doom mu ñëw ca daara ja pour jàng si fa xam-xam kilifa yëpp yónni nañ seen doom ndar ba mu fa nekkee mu di leen jàngal gannaaw bi mu toxu si Tivaouane mu gën a raw nag ndax foofu lañ daara ji am dëgg dëgg mu ni moom mu xool ni waa man damay nekk un révolutionnaire euh, sowu te ñoo ñoo mu ëpp arme wala damay nekk koo xam ni dafay nekk euh, réformateur di réformer yi yàqu yépp mu di ko defaral mu ni defe naa ni di bii daal moo gën di réformer liy yàqu ànd ak samay nit di dox ndànk te bàyyi tubaab yi bañ leen saaga ñi leen doon saaga ñëpp fu ñu mujj fu ñu mujj kenn ku nekk teg nañ la loo attanu nga ràlli nga ràlli te gor nag du ràlli loolu mu di ràlli mu nekk az-zaimul muslim ñu daal mooy di yoon yu gën a exemplaire te moo gën a wóor naa ni nu gis ci gis-gisam bu leer ba ak xelam mu yaatu ba ni man nga tabax ay étage ñu ngi ni tabax ay building taxawal ay usine bii di defar tomate bii di defar suukar bii di defar diwlin bii di defar leneen mu ni yooyu yëpp li muy bari bari ak li muy nii nii lu jafe ne defar benn nit ba mu mel ne yàlla bëgg moo ko gën jafe te loolu mooy sama mission defar nit ba mel ne yàlla bëgg boobu yoon nag la choisir doxal ca lam doxal toog jàpp njaabaram jotewul ak tubaab yi dara signéwul ak buur yi benn contrat benn buur ko mas a fekk si ñëw ñu ko damay jaayanteeg yow mu ko bismillah mu jaayanteeg moom dellu dëkkam ba ci déwén sa mu yónnee ko benn délégation mu di buur bi ñu doon tanoor mu yónnee ko benn délégation ni ko waxal El Hadji Malick ni ko dama bëgg mu gane si ma ba ñëw ñu ko teen tanoor teeñ ca bawal teeñ tanoor moo nu yónni ne dafa bëgg nga gani si moo duni leen waaw baax na toog leen déglu daal di dajale istafam yëpp ñu wut mu ni teeñ tanoor dafa yónni benn délégation ni naa ko gani si ngeen ci ñu ni ko ah xanaa nga dem gane ko rek ndax du fekkee ni moom mu ngi dëkk ca Bawal dëkk fa ak Serigne Touba yow nga dëkk fii ci Kajoor dëkk fii ak Mbaaxaan Mbaaxaan romb la fi dem jébbalu ji ca Serigne Touba moom teñ tanoor mu romb fa Serigne Touba ñëw jébbalu si fii ci yow ci Tiwaawan kon su la ñaanee nga gane si ko danga ko war a gane si mu ne loolu mooy seen xalaat ñu ne waaw mu ne baax na ñëw ci délégation bi neen waaw su ngeen demee ni ko na mu muñal ba déwén su déwén ne ngeen dellu si baax na ñu dem ca déwén ñu dellu si te taloor yu netti délégation ñu ne ko maa ngi koy fàttali ngan gëm moo woon ñu ñëw wax ko ko dellu si wax ko ko mu ne bu ngeen demee ni ko mënuma jox ko ngànt lu mat sëkk mag ñi daje ni ko ah góor gi est-ce que loolu du ko découragé ba mu toog mu ne ah bu fekkee yàlla dong moo taxoon mu ànd ak man loolu du ko découragé su fekkee addunaa taxoon mu ñëwul nag jébbalu si ci man man def maa kuy wut adduna nen daal di gàntal ba tey dem moom itam ñëwatul fa la relation yee su ko defee moom noonu la tërale woon politique am ak daaraam jaxasewu ko dara moo tax bi tubaab yi yónnee euh, benn inspecteur colonial ñu ko demal seeti daara sëriñ si ci Sénégal kenn ku ne loo gisee daaraam nga wax nu ko muy Paul Marty mm-hmm. ba mu demee ba def inspection ba ñëw daf leen ni El Hadji Malick daal benn université populaire laa fa fekk nit ñi ci dañuy wax rek kenn yorewul seen jaar daal waaye moom benn université populaire la am nee na muy koo xam ni bi mu ñëwee moo yee nit ñi ci yii ñuy wax ci lislaam al arkaanul xams ju julli uh, al uh, al iman al aqida ashhadu an la ilaha illa allah mooy ci jiitu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te julli topp ca asaka koor topp ca aj nee moom Maodo bi mu ñëwee moo leen xel nit ñi ci yooyu wala ni ngëm yàlla comportement du wax rek ni génn ca comportement la ci sa tasarrufaat yépp war nañ cee xamee ni ku gëm yàlla la xamoo ni lu xew nga tiit te ni gëm nga yàlla lu xew nga mer te ni gëm nga yàlla déedéet ku gëm yàlla yooyu ku gëm yàlla du tiit dara du tiit loolu ku gëm yàlla du mer ndax boo meree dangay ngay tàqalikoo sa sago parce que Iblis dafa yont yàlla Moussa ni ko na nga moom moytu ci temps boo meree ci lay gañe ñu baree bare mu ni soo su nit meree may jël sama gémmiñ dëpp ko ci bakkanam di xol di wal xolam boo wax loo ko njaaxum mbaa ma def loo ko njaaxum ma jindi fekk def na li ma bëggoon muy rëccu fekk rëccu est déjà passé mu ne ko kon boo méritee rek sa xel na dem ci loolu mooy loolu la Iblis wax yonent yàlla Moussa waxtu ko gëm yàlla du mer du tiit du mer loolu moo tax lu xew rek ñu ànd seen sal seeta bi ñuy bombardé fii Dakar dëggoon ni dafay wàcc. ëllëg ci deux heures dana wàcc par force Boisson mi fi nekkoon gouverneur général ni je défendrai Dakar jusqu'au jusqu'au bout ñu ne Dakar dana nekk doom ñii daw aw yoonu Wakaam ñii daw aw yoonu Tëngéej ñii daw aw yoonu Thiès boobu sëñ Babacar a ngi fi gouverneur général yónnee ci moom ni nekkoon na génn na dem Dakar na dem na dellu Tiwaawan na génn ndax dëggoon dana wàcc ëllëg te danaa ko dékku li mu am ci arme yëpp am ci arme danaa ko ko jox te bu boobaa Dakar dafay def dóom lu leen ah waaw jiite nit ñi ci jàkk yi di leen jiite ci ay xeet kooku mënuma ko ñu wax mu ni dem leen di wax gouverneur ni ko su nit ñëpp demee dañuy tëj jàkk yi indil ma caabi yi ma nekk gardien yi ba ñu dellu si ma joxaat leen seen caabi jàkk loolu laa mën a man man loolu laa man waaye daw kay mënuma ko sëñ ba dafa daw ba ñuy bombardé Dakar ñu ni ko ñaanal mu ni ñaan naa dugal du wàcc moo li ñeme wax loolu ñaan naa dugal du wàcc jàngal xale yi demoon Europe naan leen gëm yàlla ma dutee nga mën a nekk franc-maçon nga mën a nekk communiste ah déedéet ñaari doctrine xajul ci dënn nag ay doctrine xajul gëm yàlla mënul ànd ak yooyu yàlla nangu ko mu ni kon nag jullit du ay ay wax ak ay xarakaat yooyu def rek di sëgg ko siggi déedéet mu ni Cheikh Hadj Malick moo xamal Sénégal yi ni leen koor du mar ak xiif rek nee na moo jàngal Sénégal yi wax leen leen aj Màkka du tourisme wala rex la booy def pour neexali sa bakkan rek dellu si ay ñaan yooy tàllal sa loxo jëme ko ca Kaaba ga di ñaan wala dox booy dox ak tawaaf booy tawaaf diggante ca Kaaba ga ak dox booy dox diggante Safa ak moo leen xamal ni rey ya ñuy rey gàtt ya dafa am lu muy jariñ ak lu muy def ci nit waaye du ay xam nga ni ñu koy waxee ci yi tuur yiñ daan def di rey gàtt ak mun moo xamal nit ñi leen asaka du bienfaiteur boo jox rek déedéet dafa am lu mu doxal ci biir société islamique nee na boobu sëriñ si fi nekkoon tasawuf dañu ko jàppee rek issuer suñ njibar bindi saafara bindi téere ñooñu leen tudde woon sëriñ ñooñu duñu ay sëriñ nee na tasawuf dañ koo def rek mu nekk nu ñuy naxe nit ñi ni ñuy naxe nit ñi pour ñu gëm leen di leen jox addiye di leen jox ay ndimbal ñuy jaamuloo nit ñi di leen yónni ñuy taw ñu naan leen ñu yàlla te amuñu yàlla waaw ba Maodo ñëwee la bu ñuy yooyu yëpp fii ci Sénégal wan leen ni jaamu yàlla contact la diggante jaam bi ak boroom ni leen yar bi ngeen di yaru ci kër sëriñ si da ngeen dem pour compléter waaw seen matuwaay waaye demu leen rek pour toog fa toogu caaxaan di leen woy ay karaamaat di leen woon ay légende di leen wax ay légende ndeysaan benn góor mu ñëw mu ni laaj laaj ma ba ñu indil ma ko seetal rek mu ñëw nag ni ma waa man de sa laaw sa bàyyi sama xarit la woon mun ko aha seetal loolu rek te xamul sax suñu baaw kër mun ma sa laaw moo ni woon falal ma Mansour ak Cheikh ma ni ko waaw xanaa boobu def fàtte sëñ sabab muy seen mag mu ne lii ñu nekk sa laaw maa leen ko def waaw mu ne ma Senghor maa ko fal maa ko ni jox naa la Sénégal ñu woteel ko mu gañ Lamine Gueye dégg ko ñëw fekk Senghor bay Badara Mbaye Kabal la àndal man <laughs> ko waaw mu ne ma ma jox ko ma ma koy jox wax ko ni ko yaay moom Sénégal ba ba ba ngay sànni suuf Lamine koy dégg ko ñëw ni ma noo may def man noo may def ma ko ah dangaa yéex ba ma jox sa ngóor yëf yi waaye danaa la jox loo xam ne lépp lu muy doxal boo siñewul loolal du jaar yoon ngi wax ngi wax assemblée bi may di ko xool jékki-jékki ni ma gis nga daal di indi benn ni ma may ma may ma ndox ndox ci ko moo xale bi mbay si la rahmatulah alayhi ma ne ko indil ko ndox ci ko nga ndox ci daal génn benn sayu sayu xat banti xat daal jël benn sànni ko ci biir ndox mi xam nga du du du tëdd day taxaw mm-hmm. jëlaat benn sànni bu tax mu du tëdd de du tëdd de di def di def ba mu mun ma lii nag bu ma ci defee li ma ciy def boo ko sangoo yaay tiim ñëpp ñëpp te dootoo ñàkk dara ma lu tee mu def ko moom day ñëw pour nax si ma ma jox ko dara kon na loolu koy na ko defal bopp mu daal di wax ba ne ma yow nag Euh, leer rek laa lay sas soo ma joxee ñetti lalu nikkel ak ñaari manto ak un million doy bu doon keneen nag ay million la may jox ma ne quoi ah, mi góor gi man aw ma dara <laughs> man ma amoo dara mooy la man ko billaay aw ma dara fi mu pikki ni yoroo man ma ah waaw manuma jox sama donc déglu li ma la wax yoruma dara yoruma dara muy wàcc ba ci cinq cent francs <laughs> wàcc ba ci cinq cent man ko waaw man awma ko xamu góor gi nit mënul joxe lu mu amul ah man ma yow nag da doy nga waat amoo dara man ko amoo dara waaw nu ñuy def nag man ko ah lu ma ci xam yow yaa ko ñëwal sa bopp man woowuma la ñaari danga ma soxla ma ñëw ngay ma wax yi ñun ñu ah paas bu ma delloo de moom xaw ma daal di fexe nag mu daal di jóg ma dindi cinquante mille francs lañ ko am góor gi gis nga dama ko jox li ma ci laaj taal waaye yii nga ma doon wax góobu ma ci dara dara dara yu mel noonu Alaaji Malik moo koy dindi Sénégal mais nit ñi yooyu lañ doon foye di nax nit ñi di woote ay sëriñ di indi ay légende bil karamaat di dañu am karama dañuy gis yàlla dañuy gis waaw ni benn xale gis yàlla ma ne ko waaw yow yàlla kenn mësu ko gis ay milliards d'années ay milliards d'années ba àdduna amee léegi kenn mësu cee gis yàlla te ñi ko gisul wàññiwu leen dara waaw yow loo ci doon dëgg ma ne ko moo leen jàngal asalaatu tanhaa anil fahshaa'i wal munkar ci alquran leen ndax yonent bi def ni innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ni ashirku billaahi la zulmun aziim teg ci inna llaaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna daalika liman yashaa yàlla nee na lu la dinaa ko jéggale ba nga bokkaale mag keneen te am na yoo xam ne ku ko wax yaa ngi bokkaale yàlla nee na yéen it ma leen ko xamal asalaatu alal fahshaa'i wal munkar mu dellu wax moom bi képp koo xam ne si julli terewuloo lu ñaaw terewuloo ñu si julli ga daf lay gën a yàlla waaye du la ko jege nee na moo xamal fii nit ñi ci Sénégal ni leen koor jihaad la résistance la booy def pour xeex ak sa bakkan pour que du la not te daf lay jox habitude nga am volonté bu dëgër ci muñ ak yenu lu metti ak dëggu ak loyauté ak yërmande ak jéggale ak lebet mu ni koor koor loolu ko tax yow waaw daf lay jox volonté bu dëgër nga mën a muñ mën a yanu lu metti mën a dugg nekk ku loyal mën a am yërmande nee na ndax asiyaamu junnatun fa ida kaana sawmu yowmin yowmu ahadikum falaa yarfas wala yasxab wala yajhal fa in shaatamu ahadun aw sabbahu aw qaatalahu fal yaqul inni saa'imun inni saa'imun inni saa'imun bi yonent bi xasee boobu xadisa lañ leen koor nag yii la waaye du xiif ba ngoon rek di sereti di sereti wuti ngoon ndax li yonent bi wax ni koo xam ni kii sa koor terewulaa wax neen wala mu teraa tere laa def na amoo ca koor ga dara lu dul marat xiif nee na koor moo leen xamal ni du mu jarra du juuxi wala atas nee na huwa kaful jawaarixi amma laa yambaxi waaw man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yada taamu wa shaabu nee na yooyu yëpp moo ko def ci nit ñi moo leen wax ne aj aj alxaju yar la yarul jikko la alxaju ashurun maalumaatu fa man farada fiina alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi alxaj ni leen daf leen di jox habitude ak entraîner leen ci ngeen am nizaam amit discipline loolu la aj di def ci nit suma afidu min haysu afada nnaas yooyu yëpp Maodo moo ko xamal Sénégal yi ba ñu nañu jàppe woon yooyu juróom yooyu ñu wax ni mooy ponk lislaam looy def nga door koy def soo doxalee juróom yooyu loolu yëpp Seydi Hadji Malick ci ñu ko xamal Sénégal yi ba ñu xam ko ci àll bopp déguisé ومن هنا نرى أن حياته المباركة كانت مليئة بالنشاطة العلمية والروحية والعمل الإسلامي المسلم نتيجة سيد الحاج مالك dundal bu barkeel googa la ko feesoon mooy ay activité ci wàllu xam-xam ci wàllu rox ci wàllu bépp jëf boo xam ne l'islam digle na ko rek ni doomu aadama war ci yëngu ndax mu am ngërëmal yàlla nee na dund gu feex dell ak ay jeexital yu rëy nee dund gu feex dell bu mag ak ay tedd ga yu rëy nee na kooku nag dundam yeeyoon ñu enregistré ko taarix enregistré jëfam yi ñu bind ko ak daawu or ngir xalam ni aziman min uzama taarix kenn la ci ñu mag ñi taarix masul nekk saa'ir sawra xamul islaax la xam ndax sawra dafa wóoru dafa am benn sëriñ bu songoon tubaab bi ñu dóor ko kon kon sëriñ nag xamul kon faagaagal dëkk bi yëpp mu ni dem leen ñu tubaab mokk naa ba mel na ñuy wax sunguf tubaab yi ni kon na ma woon nii na mu mel mu ni faat leen sow yi waay ñu faat mun def leen ci sunguf tuuti ñuy def di yóbbu mu ni ma jàpp ni indi ma la am loolu la Seydi El Hadji Malick doon bañ ndax góor du ràññee moo tax bi mu ñëwee mu ci fi ceddo yi ñuy xeexal tubaab yi di xeexante ñoom ci seen bopp tubaab yi di xeexal ñoom moom mu ñëw wut yoonu boppam nekk zaimul muslim nee na mi ngeen bokk min uzama taarix wa zaiman muslihan min anjahi zurama al islam al islamiyin ni mu réussir benn leader boo xam ne da nga jóg di def ay réforme ci sa biir penc ma soo réussir noonu nee na nekk imaaman min ajali a'immati lislaam nekk njiit ci njiit yi gën a màgg ci lislaam wa aliman faqihan mujtahidan wa suufiyan arifan billah min tiraasi al awal wa mujahidan fi sabilillah loolu la am comme résultat bi mu jaaree fi mu jaar ak lu wax ni mu jaar ak résistance bi mu def fi mu jaar ak seytaane fi mu jaar ak bakkan fi mu jaar ak doomu aadama yi ba génn loolu la jur ci moom nekk aziman min uzama italia wa zaiman muslihan من أنجح زعماء الإسلام الإسلاميين وإماما من أجل أئمة الإسلام وعالما فقيها مجتهدا وصوفيا عارفا بالله من الطراز الأول من الطراز الأول bu fekkee ni prix premier moo ko gàddu moom moom nee na jeexal na dundam yëpp ñeel xam-xam ak diina nekk mualliman bi ilmihi al-Ghazali wa bi lisaanihi saadiq wa bi qalamihi sayyaar nee na wa min xilaali hada al-aam al-wajiz najidu anna شخصية الشيخ الحاج مالك سي هي أسمى نموذج للإنسان الكامل الذي هو الغاية العليا التي ترمي إليها التربية القرآنية لتحقيق المثل الأعلى على المستوى الأخلاقي وعلى السعيد الروحي وإذا أردنا تلخيص ما تحدثنا عنه wa yumkinuna xasruhu fi niqaat al aatiya nee na man nañu résumé li ñu wax yëpp te ba ñu commencé waxee léegi seen Alxaaji Maalik Si fi mu jaar li mu def li mu changé ci Sénégal ak li mu fi fekkoon li mu rafetal ci lu ñaar li mu setal ci lu tilim mu ni loolu lépp bu ñu ko bëggee résumé li ñu waxtaane ci moom mën nañ koo résumer ci lii di ñëw nee na stratégie Seydi El Hadji Malick face les colonialistes français ak situation yu yàqu yu mu fi fekk woon mu sukkandiku ci yar ak xam-xam yi nga xam ni def ko def muy wasila faala li tasxiix al mafahim al munharif def ko muy kerkeraan bu efficace pour wéral dégg yi ñi nga xam ni seen dégg dafa erroné am na xam lu ñu dégg bu ñu la ko waxee da ngay bëgg a wàccu bu ñu fekk woon kilifa gu waxtaan ba ñu jege fa buñ la ko nettalee da ngay bëgg a wut ndax ah, da xam ne dégg la kilifa ga wax nee na dégg yi erreur yooyu nag Maodo moo ko seetal waaw ba amatul Tunisie nee na mu def ko nag bil waasi waare wal ishtar ak juble wal amru bil maaruf ak digle lii wa nahyi anil munkari ak tere li yàlla tere nee na ak daawatu dañ ko considéré comme semmiñ boo xam ni mën naa bu lépp lu mu fi fekk tëdd noonu alwasaniya al muslima mën na ko màbbu te boobu nekk mutafashiyatan fi Sénégal wa fi Ifriqiya al garbiya muhaaribatul bida bida la gënoon taxoon ba mu demee mu ni du ñëw daf fay toog ñu ni man defu mag bida nen ak njibar mu xeex ak moom xeex ak yooyu bi ihyaa sunnati nabawiyya al wa tibaa athari salafi saalih dégg comportement nit ñi mu wéralaat ko seen imagination yi nga xam ne dafa jaare di yoon yëpp seen Xaaji Malik fexe na ba ñu dégg déggin bu wér mu leen ni alquran ak sunna wa asaru salafi saalih ak jeexiti mag ñi fi jiitu woon moo nekk baasu turuqu suufiya yi fi nekkoon loolu moo ko woon nit nee na mu jël yoonu neutralité ak politique bu naxante nee na loolu moo ko fàggul cofeeli doomu aadama yi ak kéemaanu tubaab yi fi nekkoon nekk ay nationaliste ñu mujj ko wormaal ba def ko fa seen bàyyi ñoom ñëpp nee na ci politique bu jub ci la yi ñu bari ci njiiti Sénégal yi nga xam ne ay cedd lañu woon dugal leen ci diine l'islam tawan te forcé wu leen indiwul jaasi indiwul dara waaw wax rek ak naxante ak waxal yàlla lim bëgg ak leerale leen li leen nëbb loolu ci la jaar ba dugal ñëpp ci lislam bi tarixa Cheikh Ahmed Tidiane nee na nag boole ko am jaadalatu billati ahsan ah maal mustaamirina muxtalina temps bu ñu bëggee def njaaxu mu jóg dox seen digganteeg nit ñi waxanteeg dëgg goo xam ni pànk bi ca bopp wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati hiya ahsan illa alladina zalamu minhum nee na siyaasa bu xereñ bi ci la colonialiste yi dëgg ba di ko teral jàmbook moom jox ko occasion bu mën a liggéeyee pour tàllal tarixa si Ahmed Tidiane yi wesaare diine l'islam ci gox yi nee stratégie bu ñaw bi Seydi Hadji ci la aptene notre force coloniale damm seeni jën nee ba ci la dëgg ñoŋal pas-pasu jullit yi ba kenn sàccu leen dugal leen ci li ñu warul dugg nee na ci stratégie bi ala ci la mën a liggéey ba liggéey nit ñoo xam ni ay exemple lañu ci seen comportement jikko muqaddama bi ku ne gis na leen ku ne dégg na leen ci gox yépp ci Sénégal nee ñu nekk rijaal misaal yi fi suluk alxuluqi yi ala mustawan rafian nekk ulama nekk ay borom xam-xam wa suyuxan ak i sëriñ wa muqaddamina ak ay muqaddam xayurine ñu fiir ci seen diine ak seen tariqa fastaxaqa bi dalika alxuluda nee na loolu moo fi bàyyi liñ fi kenn mënu ci dara dangay ñëw bokk ci jag génn yàqu pexe doo jàng nee loolu moo ko may nit ñooñu mu am ñu fiir ci seen diine fii ci seen tariqa koo ci dajeel wax ko benn baat lu jëm ci jéem koo génne te la mu nekk mu tontu la beneen baat bu ko gën a di téeméeri yoon nga ëmb dem sa yoon nee na loolu moo ko may li fi bàyyi dara soppiwu ko dara yàq nee na principe am yu yëkkati bee ak xalaatam yu leer yi moo fi nekk ilal abad maa al mujahidina al abrar alladina anama allahu alayhim min annabiina wassiddiqin washuhada wal awliya assalihin alladina qala subhanahu wa taala fi xaqihim ala inna awliya allahi la xawfun alayhim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته